ah sëñ baa ngi ñëw. génn si leen génn si leen génn si leen. sëñ baa ngi ñëw génn si leen. sëñ baa ngi ñëw génn si leen sëñ baa ngi. ah génn si leen sëñ baa ngi ñëw sëñ. sëñ bi sëñ bi la. ah. tubaarkàlla macha allah alhamdulilah. ñëw leen toog ñëw leen agsi leen. sëñ bi. alors c' est kii bi c' est sëñ bi yow sa maam lañ daan wax yéen fara waa du njaag daara waa du ma is sàkkara fan maag dem ba borom jam-jam yi ci la ñaan ay jëj laay laay ni la ah mbooloo iya mi day yemu na sëñ bi nee waxtaan wi mën naa commencé sëñ bi nee waaye borom dégradé bi ci kaw bu bu nga bu ma ci cawal ba mandi cawal ba mandi ma ne cawal ba mandi moom <laughs> ya, mau moom daxal mau sa daxal lool sa moom day reexal lool waaye nag ñi ñi ñu toog mayor maa yor seen seen karange ya, ar maa yor seen ah sëñ bi ne moo yor kaaraange ya, gi sëñ bi ne moo nii aar sëñ bi ne bu bu gayda taxawoon moo koy songu sëñ bi ne bu bukki taxawoon moo koy songu sëñ bi barkalla ñu ñu ñu ci ci la mu ne. ñoom ah, ñi sa toog ñëpp ci saa ginnaaw lan kos sëñ bi ne ñoom ñëpp seen ginnaaw lan topp sëñ bi ne moo ñuy aar sëñ bi ne moo nu moom sëñ bi ne moo nu. bàyyi waaw waaw waaw waaw waaw waaw non non non aywa sëñ bi yoroon na yoroon na ba fi mu ne daal feebar tawat gi nga xamante si nii mooy sonal nit tawat gi nga xamante si nii kum daal tawat gi nga xamante si nii waxal gaaw waxal gaaw waxal nawet gi nga xaw a des lii moom yow Ba sama yëre bi yow. ah awee ma fekk sëñ bi ne tawat gi képp. ah képp. na gaaw toog ci basal gii moo lay aar képp. sëñ bi képp. sëñ bi képp ku toog ci basal gi feebar bi du la dal képp. Yow do? Kip koum dal do ka efek? Ay! Feni. Sot mi dami ne ki... Lol lol. Dam lom moun an bonon boga san. Lol lol. Feni. Lol lol. Lol lol. Feni. Fidel. Fidel. Oh! Oh! Baleri. Mou yare. Baleri. <laughs> Oh no no no no. Oh no no.